si journaliste yuy def rétention d'information comme ce qu'on m'a fait ce nan lañ la def ce matin non ma invité benn télé ñu ngi may seetaan et je m'en fous li ñu ma def sama m'a fait très mal. nan lañ la def on m'invite ñu xam ne dernière minute a ngi dem ñu jox benn xale bu jigéen di wax. xale bi di wax ma war a tontu ñu dagg émission bi couper micro bi. léegi loolu xale bi wax moom la ñu dagg dugal ko TikTok ñu may xas. xale tu étais avec Gabriel Kane sur le plateau. non sama euh, non xale la parce que maa ko mag fuuf. waaw mais du xale et ça m'a jàpp ne nit suñ ko joxee kàddu mu wax. mais temps bi dafa jeex war non mais attendez bi mu jeexee kon ñu bañoon ko jox. mais la manière même la dame a coupé l'émission ça fait très mal ko jóg taxaw taal émission di wane ay journal loolu xale bi wax moom la ñu dagg dugal ko TikTok di ma xas et fait très mal. nit nag boo ko invité débat. soo posé question da nga koy bàyyi mu tontu man je ne suis pas le président de la République du Sénégal c'est le président Macky Sall qui a été élu démocratiquement il ne peut pas le président de la République du Sénégal man ma nekk un allié di ko jàppale may joxe ab programme kooku c'est vraiment la walla nga bañ a xam lan mooy la nation étatique euh, euh, euh, wala nga bañ a xam may ma may wala nga bañ a xam lan mooy état man mënuma ànd ak président mu war a définir sa man ma toog man di définir sama programme loolu mooy lan ak fallaam loolu la waroon bàyyi tey ma tontu ko mais ils m'ont pas donné l'occasion ñu dagg ko dugal ko ci réseau yi ñu may saaga et ça m'a fait très mal et je l'ai même dit au rédacteur en chef je lui ai un message pour lui dire ça ma ne ko tooñ ngeen ma et je lui ai dit dëgg moom la yàlla bëgg te fu ma fekk fa la may bàyyi et dañ maa tooñ te tooñ nañ ma ba ci kanam yàlla

Massaly waaw mais may ma pour plusieurs ko c'est son droit le plus absolu même bu fekkee ne ça s'est pas passé euh, ci suñuy antenne xam nga euh, je pense que vous avez compris de travers l'interpellation de Gabrielle Kane en fait elle elle vous parle du discours elle dit que ce pays là dañ ko war a reconstruire ce pays là euh, jeunesse bi dañu leen war a guider est-ce que yéen tamit homme politique yi amu leen un discours à l'endroit de ces populations au lieu ngeen di répéter tout le temps président Macky Sall président Macky Sall fa liggéeyul bu président liggéeyee ñun duñ ko wax n'ont pas le droit de le dire quelqu'un qui a fait des avancées mais war ngeen am un discours si propre si pàcc boo laal am na ay perse Sénégal Sénégalum démb ak Sénégalum tey nañ ko méngale ñu xool ko euh, Maymuna awma droit man eh, évoquer loolu léegi man politique gouvernementale man maay toog man di joxe sama. programme vous étiez rattrapé par le temps. a pas une du rattrapage jàppewuma ko loolu. man nit mënu ma toroxal du mbindeef moo may toroxal man non si si. non du toroxal. non ba mu waxee mënoon nañ ma may ma wax mënoon na man su ma leeroon ne man loolu laa fa fekk duma dem. may mën a nag ñàkkuma fayda de te ñàkkuma fulla je me respecte quelle que soit nag la personne je me respecte. waaw bu leen tollee noonu bu ñu ma invité ti mais man je me respecte kenn du ma invité sa plateau du ma toroxal. loolu du ma ko nangu parce que ñàkkuma fayda. loolu parenthèse loolu bu may souligner parce que je tenais à le dire. parce que la def si commentaire yi gis naa ko te du sama coobare. ñëwal ci man nag samay tontu du forox moo waral lii.